léegi alaaji Mara ak Asia nii lay def rek di bëggal leen ci mbaax lu dul jàmm jàmm ko gën ñu waxtaana ko nag ka foore mhm. indi nag naan bu jege ba diwaanu Médina mhm. ñu koy wax maam Balla mhm. Balla nag moom sama Balla bopp la ndax sama maam bi jur sama yaay ji nga xamante ni mooy sama xol tey sama maam a ñëw na ngeen xam seeni question xam ni ngeen koy xoolee xam yi ngeen di wax ak moom njar leen ko Ah, kon dinañ ko jar. Ah. na neex. bi ngi noonu dalal nañu euh, ndaanaan Papa wax na ko léegi léegi Mame Balla euh, il se nomme de son vrai moom la ñuy dalal tey ci ambianceur bu ko defee suñu ay téléspectateurs dundaat leneen ci musique découvrir leneen ci talent découvrir leneen ci ay couleurs musicales dina am solo c'est un plaisir Mame Balla ñu dalal la ci plateau bi. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñi ma dalal di Papa ak Mara. ak sama jigéen bi nga xam ni asi mm-hmm. ku baax la franchement parler après di nuyu sama yaay Awa Mbay di nuyu sama papa ak sama mag yëpp waa di la tamit ne kontaan naa lool lool lool lool si mm-hmm. dalal bi ngeen ma dalal mm-hmm. plaisir la donc dañu lay bàyyi ak téléspectateurs yi fi mu toll nag xam naa ne gaa yaa ngi scotché wu toog di seedaan parce que ambianceur moom xam nga bu heure bi jotee day tombeek heure de sieste ñenn ñi nekk ci bureau yi ñenn ñi ci biir kër yi añ ba noppi toog nag dañuy bëgg a déglu musique boo xamante ni tubaarkàlla mais nag man ni mu la nuyoo neexuma def dafa yaru torop man bëgg artiste bu yaru de man seex laa bëgg seex seex man seex boo bëggee ñaawaay ba yàlla dama doon bind pareegul ma jóg <laughs> bul yaru la si on se prend waaye bul mel ne seex seex bul mel ni moom de jóge fi dem émission ñëw dem ñibbi naan dañoo sàcc sa téléphone ak dañoo sàcc sa cent mille ak dañ maa agressé bul mel ni seex de gis naa ko ci tiktok mais Mame Balla xam lu mu def toog yor téléphone bi di way di way ñibbi na nañu ko ne dañ ko agressé nangu téléphone am mais mais seex lu ko jaral loolu dafa sikk léegi nañu bàyyi Mame Balla mu ubbil ñu jotaay bi camper le décor ak avec sa belle voix et sa voix mélodieuse mu béggal suñu ay téléspectateurs ay dëgg dëgg moom lay giin di ko waxtaani passar. boole gàgg di la xool ni ko wara ni nga maanoo topp nga sab yoon noflaay bu ko sakku na liggéey di sab yoon na àdduna dina jeex pour yàlla fayu jàmm mara deme naan atureer naa yaay atureer Asia, Asia, ma ma waxal la ñaar yi xanaa xamuloo ni Asia jëlal fobal jaay naa la maa la lebal waawaaw sa jikko yiw na sa jëmm ji duma si doyal waaw Asia tàccu yëngul mbëru ko jum jum dem la wante Asiya danga sojoon man ma si buro kenn talul dara waaw Asiya Shabarabadaa waaw dimbali ma maar ma loolu maam Ba la maam Ba la mi ma dégg kaay kaay maar ma loolu. ma jaaga may sa joor ay fuga naanan jaar mu walaay. ma jaaga may sa joor al al al walaay. arki sëriñ Tuubaa ay maam Ba la fi mu jàpp a neex. fi mu jàpp dafa neex. ah tamit nag. man xam ma noonu nii la mënee way de. man bëgg naa façon musique bii quoi. man bi ne ma Maroc la nekkoon. Mm-hmm. ma ne ah ambulant la. wuyaay ndek moom waykat la. man ambulant laa ko nga ne boo demee marché Médina ba fa. moom demoon na sax bay dugg ci gaal gi. ay mbokkam ko mu ñëwaat. ñëwul toog fii way. yoonu jàmm soriwul. en tout cas yooyu yëpp dinañ ko waxtaanee ala lan la wuti woon Maroc lu tax mu dellusiwaat ci biir réew mi. ak talent bi nekk ci moom yëpp dinañ ko waxtaanee incha allah rabbi Mame Balla ñu ngi am mbégte tey dinañu dundul beneen musique xam naa ni parce que li nga jota def ci nuyo bi introduction bi am na solo tey Mame Balla boo doon def une présentation de Mame la kan mooy Mame Balla kan mooy Mame mhm. pour les téléspectateurs yi nga xamante ni. ñu la xamul daal ñu ngi lay soog a gis tey. waaw damay profité balaa ma wax sax kan la Mame Balla. di dimbali ma bàyyi ko fi mu newoon. di nuyu sama soxna. très bien bu baax. Mhm. daf ma jàppale si lu bari. dund lu bari Maroc mu jàppale ma si lu bari nday yow yaa ngi Mara yéen waaw ku baax la. Mara fu mu toog dee gërëm jabar ji bu baaxee da nga koy ah, bu baaxee da nga koy ci buntu kër gi ngay fanaan. waaw loolu yëpp mën a am. ba pare tamit Mamba la nekk booy bu gëm boppam. ndeysaan booy buy ñafe. Mm-hmm. lu bari. Mm-hmm. di ko def si musique. Mm-hmm. Mara damay jaay sama téléphone sax di ko répété. billaahi wallaahi taala. xaaruma kenn si dara. di dund lu bari nag ba may ñibbi si indi woon naa fond. ba ñu demee bi ngay jóge Maroc quoi ah. mais lépp dama ko répété. waaw c'est ça. waaw na parce que damaa gëm ni lépp looy liggéey. ñu si war a fere. pour ëllëg fay bi nag du léegi. Mhm. pour ëllëg la. Mhm. te musique bu la fayee rek mooy da ngay da ngay da bëgg daal. waaw man laa jàpp. comme ni la Mara laaj doon way wala da nga ànd ak ay waykat di leen aw wala pour wax sénégalais yi fan nga jëlee li ngay def nii. waaw man dogo laa sax man dogo faale maa wa jor laa. Sumba Samba yaay jaloor. Ah, a waay Pekaay ñoo bokk benn maam mais ma génn mu sàtt. <laughs> ay waay kii la Pekaay kii doon way wala dama ko doon. waaw waaw man dama daan si taabalu école yi sax. Mhm. ñu may booleeg sama yaay léegi directeur bi dafa bëggoon laxas. laxasu la laxas moom laa ko doon jëndal di ko ko naxee. ah laxas yi nii laxas. waaw directeur école. su ma ñëwee mu bàyyi mu sedd. laxas yi ci pousse pousse. waaw. ah. moom nga ko doon naxee. oui. nu mu tudd. bul wax tudd. non <laughs> Papa Ndiaye day def ci def ci code Papa bàyyi yow topp nit ba mu sës. damaa bëggoon bu ko tuddee. léegi bu waxee xam waaw. laxas lay wër moom lañ koy naxee léegi bu génnee walaay doomam génn ñaa ko sa papa laxas lañ ko doon naxee. doo bàyyi def. <laughs> non ku ne jaar nga ci boo nekkee xale ah li nga li nga li doon sa passion da nga koy dund ci biir école bi mais Mara li muy wax ni jaar naa ci parce que booy doog a débuté art yenn saa yi ñu may la téléphone wala dàll bu baax affaire yi métti ci yow mais da nga koy jaar pour percer mais nag li nga wax nii mës naa dégg Wally Seck wax ko de musique boo ko lebalul du la fay déedéet li ngay waxtaane ni tey xëy na yow yaa am waaj baay euh, Fallou wax ko mais bëri na tey ñu koy dund ñu yor ay millions ci art jaar nañ fii nga jaar. dëgg la am na loo xam ne boo ko lebalul du ñëw. xanaa na de xanaa déggoo Mbaye Gueye Faye ak Youssou ba ñuy nettali seen Gambie bu njëkk ba. waaw lu neex bi Mbaye Gueye di dem Gambie te tàggoowul. <laughs> lu neex xam nga lu aar ah, barki Sëñ waa dañuy wax waaye li nga wax rek musique bu la fayee rek nga yëg ne fay na la fayee rek nga yëg ne fay na la rek maam joob rek dina ñëw de euh, euh. te li ma jot a dégg ni Mara euh. sànq def na geste bu ma neex ci artiste mooy day feeñ sax ci mbër na aatu réer na ba ci yàgg mu ree boppam lu tax nga ree même bu dul musique Papa Ndiaye man musique dina ma fay. damaa bëgg ku yëg boppam da yëg sa bopp moment boobu. ndax même bu dul cadre mën way wala dara. waaw man li may way macha allah bu ma ko wayoon néew bu bees. bu fanaanut day jugaat. mais lu tax nga ree. damaa ree lu bari ndax parce que damaa xam ne musique moo ngi nii sama kanam dafa may fay ndax sama yaay dafa sonn. papa sama yaay togg na ba togg lii pare sama rakku papa këpp ko mu dem boyalaat seena moo tabax suñu kër sama taaw papa. Hmm. taw na ñu toog tëdd nii si ndox mi sama yaay di tànk ndox di tuur sama papa tëdd si kaw lal bi xam na góor amul yërmande. Hmm. dafa dafa dund lu metti mais noonu la loolu moo la def nii nga mel tey. mais mis à part mis à part euh, sa yaay lu mu dund sa sa kër papa ndax ku wax souvent. yaay su amee nu mu sëyee sa kër papa rek da ngay da ngay tekki mm. euh, mais mis part loolu loolu yëpp lan lan nga dund ci musique loo xamante ne tey mën nga ko raconter peut-être ñi nekk sa ginnaaw ne ñoo ngi ñëw ndax am na ñoo xamante ne aussi dañuy nekk ci musique mais yàqamti mooy tax peut-être du ñu am tey lan nga dund lan ne rek euh, mën nga ko raconter ñoo nekk sa ginnaaw lu metti daal dund naa lu ne li ma gën a metti si musique dund naa lu ne nag kuy way ku ne ak kuy ut lu ne uh-huh. di nga jaar fu ne uh-huh. mais li ma gën a metti sama musique waali moo ma ko def waaw loolu moo ma gën a touché man sama xol bi te loolu moo may def ndaanaan parce que dafa am ku ma ko laaj moo tax ma ma laaj la loolu waaw que ko moo ma metti daf ma touché nag ñëw na Maroc ay billet Wally Seck ñun ñoo ko doon jaay may bàyyi sama liggéey dem di ko jaay mhm. ànd ak promoteur bi mu teral ma si kaw seen ba mhm. mu ñëwaat baaru mu ni ma dagg samay ras xàmmee ma mais si kaw seen bi daf ma humilier mais faale moon humilier bi maa sama talent ba xam ne lii moo taxoon may rayante mhm. booy yéeg ci kaw seen da ngay tàggoo ici c'est moi te Wally xar ba ñu rey ci première doomam sama mag moo ko jënd kolo ay mbokk wax xam nañ dafa métti mhm. mbër mi kii kaw moo koy inspiré wala moo koy forger à ce que. Mhm. roi des arènes Ama Baldé bi war a bëri Modou Lô dimanche toog na Modou Lô presque 6 ans wala 8 ans wala ndax 9 ans. wala 10 ans ma Modou Lo daanee mais mais Balla man leen leen ñaan parce que nit ne parfait mm-hmm. yenn saa yi nit nit juum mm-hmm. waaw nit matul waaw dama bëgg nga jéggal ko jéggal ko parce que am na lu mu def ca ca non jàppalu ma ko dara waaw xam nga tax ma ne jàppalu ma ko dara mais dama ne ma loolu moo may def dëgg la dëgg la dëgg la moo lay yëngal mais jàppalu ma ko dara na nit fa nga koy fekk ak na muy nekkee waaw fi nga koy fekk nekk na ci rek waaw na ci rek yàlla ñëpp la fi nekkal te incha allah sa wërsëg moom ci aar bi di nga ko jël par la force waaw kenn mënu ci dara def ay yëf man de bëgg naa la lool ndey suma chérie City boy, Shere, Shere. man ak yow dund nañ lu ne. muñal nga ma lu ne fu dara nekkule waaw yow dangay e sus yow e Papa Njaay yow am na ci musique ndax liy dal artiste artiste dëgg liy dal artiste ko dal wala boog artistes yi xew li leen dal moo ko dal daa am nekk ci moom. waaw ba pare ba pare jékki-jékki na rek ay bagage ñëw. waaw man bëgg naa bëgg naa loolu waaw li ngay répété. waaw nga teg ko fële xool li ngay gis nga jël ko. Mm. ndax naan la de mais mais kii. kii ak waali dinañ def dara kii ak waali maa la ko wax Mara dinañ def dara. Mm. day way may gis Papa Thione di gis waali. kon kay mbokkam la dangeen ngeen war a def dara. dëgg la. la preuve bi muy woy wu njëkk bi mu woy su ma juumul tempo musical bi timbre bi ci euh, woy wa Papa Thione woyoon Massamba Ndiaye waaw dégg naa loolu de loolu moo tax nga ubbee loolu woy dugg dugg ci ay timbre Papa Thione waaw xam nga Thione képp ku nekk Sénégal mhm. danga koy dund mhm. ah. muy man ak ku mënti doon mhm. te Papa man desee moom may fekk Maroc mais dese papa Thione man fa war naa ni sa même jour man sax dama doon dem déjà ndax li mu yóbbu ci yow waa naa ko moom ma fekk si gaaru tram bi hmm. man gëwuma ko ba hmm. nii man papa Thione dama koy dund déjà koy déglu lu bari waaye mi nga woy xale du ko woyoon de kumbaantalu njóob la njaay boobu mu woyoon bàyyi mbay si njaay mii ak barlu benjamin loolu xale du ko woy hmm. loolu gone du ko woy nañu dem ci aasi le temps ñu bàyyi la nga souffler ñu jël benn petite pause dem seede aas yi xool tey lan la ñu indil ci ay délire yooyu parce que tey jeudi la donc xam naa ne délir yi mooy ñëw aas yi. waaw léegi ñooy ñëw Mara. Mhm. Euh, am na si ñaar yu ma jot jël. ñu dem seetaani ko ñëwaat ci plateau bi. nañ dem jëli ko dellu si. mais bu paree ba mu koy léebal de. yow mi ah damaa naroon léeb bi passé mu yàqal. mu noppi laay def nag bi yoon. bi moom patt laay def. waaw ah, moo gën de dara métti ba pare. Mohamed su baaxee ñu dem jëli rubrique AC dellu si waat. bi ñuy dox di dox di dox ba séeréer bi jékki-jékki rek gis benn baar quoi rek dugg ko pël bi eggale ay mission am jékki-jékki rek ne kaaral ma kool suma gàmmu ci lan la nekk kër gii mu dugg nii man kaw ma kër lan la dafa yegg si rek gis ay butéel na kot fii de kër kaaj la fii fii mooy kër kaaj jékki-jékki rek booy gis ko xool mu teg ay vin rouge quoi rek mu ne ko gàmm li ngay naan konk na de yow sa but bi sax def konk sa but bi melul woon nii kumba rek seer na ko ma ne samba toogal bu de ngay naan nga naan li ay vin rouge la samba ne ko vin <laughs> yow yee ruus rek moo ruus loolu nii su but bi jékki rek ne eh garçon garçon bi ko mu ko jëlal di fi nekk lépp verte zone rouge nga cocktail ko nga jaxase ko nga def ko ci butéel nga jox ma ko ma naan daa ñu ko yii baay mbaa di nga daaji sa ne maa ne kott kana du may fay jox leen gars yi tegal ko ko sa waay dafa naan jékki-jékki rek xoolal daaj yi commencé ñëw maama daaj ci bopp bi lay commencé bopp bi ñëw bëti jaawaloo quoi mu ne gis nga gàmm dipp sànq bi léegi lu ma xool ñaar lay ni gàmm ne ko ma ne xoolal toogal nga bàyyi sa foo gi ngay foo ni mu ne gàmm suma làmmiñ bi yàlla moo ma ko mayoon kon yeggatuma ko di yeey làmmiñ bi affaire yi wàcc ci tànk yi tànk yi ne tërëf mu ne gàmm man li comprendre tuma ko de tànk yi waraat kërëb mu daanu quoi jaaxaan séeréer bi di reetaan rek mu këf butéel bi ne billaay tubaab mooy saay saay mu jël caka ban aka nooju aka gal-gal mu def ko ci butéel moo tax ku nekk di kii. xam nga mbay mbay awa xam nga ko. booy mbay sa booy bi mbay. mbay laa bëggoon mu aal ma. bi mooy mm. mbay tamit de ah, waa. di daw naan ni ci plateau bi xoolal moom loolu rek la fa nekk. lu abaa wax xoolal bu ñoree bu ñorul mbay day jékki-jékki rek ne waa. mbay loolu la fa nekkee <laughs> mbay ay ay réunion la fa nekkee waaye nag yow kaa wax la li nga doon def jar naa ree de non non non dañ doon jëw ñu ñett ak da nga doon man aasi aasi lañ waxtaan man sama téléphone laa nekkoon ci nga bokkoon eh, léegi doon nag léegi pour ñu xam ne ñoom ñu àtte am nañ am nañ arbitre dañu àtte dégg xaaral pour ñu xam kan moo doon jëw waaw xam nga temps booy école bu maître bu bëggee xam ndax yaa ngi suivre wala suivre da lay laaj lan la mujjee wax papa Ndiaye ki doon lépp lu mu wax ki doon ki doon lépp li mu wax. <laughs> mais loolu da nga koy laaj ñi ci régie bi nga xam jox ñu émission bi. waaw mais man am man maa ngi doon déglu. barki Seydina Mouhamed bu fekkee dégg nga li ngay wax ma jox la ñaari junni léegi. barki Seexul Xadiim eh, bul waat nag dégg na ko. fu mu ko déggee génneel ñaari junni déglu rek génneel ñaari junni léegi ma waral waa ji wax génneel jàpp naa la ah jàpp naa. Mara dafa yàgg bindu noo dee ba. non mais nag jëw naa waaye tamit ki ménagère bi tamit <laughs> ah ménagère na nga def. mais Arjara waxal émission bi ñëpp ci lañ bokk ñëpp téléspectateurs yeeg public bi ñëpp ci lañ <laughs> ah, na solo Papa Ndiaye ki lépp ci affaire la doon wax entre ah. ak tukulóor comme séeréer dugg ñu koy joxe yooyu ñuy kii mu naan ko mu am fu ko yóbbu léegi nee na lépp lu mu xool ñaar lay doon ci moom. Mara benn boy boo xam ne dafa jantal. waaw comme Balla. mën na sañse bëgg xeeñ ñu neex. bëgg xale bu jigéen bu rafet nag. muy génn ak booy bi di génn ak booy ba benn instant booy bi tàgg ko tukki nekk booy bi daa demoon defi séries ah. <laughs> yi te xale bi mool gi mu mooloon ah. mais bi mu ñëwee rek def fi une semaine waa ji gisu ko dégg ko mu ko ne ko bébé yegsi uh-huh. bi ñu toogee di waxtaan waa ji xet ko rey moom xàmmeetul xale bi <laughs> ba xam ka xamoon la wala du loolu léegi nekk xale bi la léegi la mu xet gi xet toog ba ci yàgg na ko mais bébé tey ban parfum nga laal mu ne ko les trois chats mu ne ko xoolal ba xam benn deewul. <laughs> ndax xet gi. moytu leen cerise. <laughs> waaw. Ah! wax naa la del jël Papa Ndiaye ci rubrique bi ma lay léewal. moytu leen cerise. sama micro laay jël Mara ba xam ngeen damay wër léegi. sama micro laay jël ba pare Mara. waaw mais cerise lu muy def nit. ah dañuy bëgg gën a jekk jekk na Mara nag wuy ma maa ngi naan Mara. man daal ñett yi ñoo ma nekk. wuy ma ñooy non dimbali ma damay dimbali sama rakk yi may seetaan. baax na man jigéen bu sa jikko rafetee. Mm. say dentition rafet. Mm-hmm. ngay wax ndànk di def ndànk bëgg naa. wuy yaay. clavier bi ngeen. bi ngeen naan yow. na moom string moo la gën a neex dari. <laughs> Ah, ah, ah, ah ah ah booy la <laughs> eh booy eh. yow booy. day maam de. di teel a nga ne de. day maam. <laughs> mais yow ñii suus xale yi nga naan dañuy suus mais suñu ginnaaw yi suñu defee chirurgie du baax. non ginnaaw du dara ci nit. jikko muy nit waa léegi yow waxoo suus dafa laa neex. ma neexoon. bàyyi en tout cas ñuy suivre yi xanaa déglu wuñu woon wooyu Papa Ndiaye kii ba Papa Ndiaye ba. bëri na ah. fonde naan fonde amul pertement boo ci amul bénéfice. te fonde bi fonde bi nag ak a gaaw a def effet nag maara. waaw fonde bi ñoom ñi koy jéem nañ bàyyi mais ndikku ngi ne xoolal ndikku ndikku may génnal fan yi ndikku. ndikku mel ndikku ñu ngi génn. ok ndikku moom moom cerise wul deful dara elle est yëf yi yàlla moo koy def rek. ndikku rek laay topp. dugal ci ndikku dégg nga. Euh, Asi bi am na solo parfois c'est bien indi loo xamante ne dafay euh, détaillé. mais nee na daa am lu muy laaj kii de ma ne ko ah ngi nii de. benn question. waaw euh, pourquoi Maroc. kii euh, benn dëkku waaw Maroc te toogoo Sénégal. Mhm. Sénégal kii benn dëkku si. ok Asi Asi eh. pour pour être plus clair ci question wu Asi. waaw mooy quel était ce motif bu voyage. mooy li ma la wax mooy man am moo coobare bu dem toog Maroc. ok xamul loo yóbbuwoon Maroc. eh non leeralal la dañ la jëndal billet wala yow yaa jënd billet dem. wala daa am ku ne ne ñëwal Zézi. ba jour bi may dem Maroc. Mhm. maa ngi am avance xew. xew moom nga jëndee billet xaw avance xew bi. non maa ngi am benn avance xew bu ñu ma jox xam nga mu jee delloo. waaw mais kan moo la jëndal billet ba pour nga yow yaa jékki-jékki rek jënd billet bi dem. xam nga daan toog sama yaram bi di mel ni ci dugal ay xal. oh. yow ndeysaan. billaahi wallaahi taala yàlla bu ma dara si. non yow man Ba la yoroo sax kanamu koy waxantu. billaahi. Oh. ma dem Maroc ay un mois affaire bi bàyyi. ma nekk mën a topp xew yi xew yi neex ma gën a toog. la demee. mais sax amoon nga foo dëkk méttiwul woon ak yow. non ah, méttiwul na sama mag laa fa ma defoon ma dem Angleterre toog fa di bay pomme de terre rek sa yaram tàngee maram maa na fi di. maa génn ay sarax mu ñëwaat. laaj ki laa man ba may dem kenn def ma dara macha allah maa demoon sama coobare bopp. yow aha kay fii la toogoon tànk du ruux. Ah, mu jékki-jékki seen biir famille may naan ko. maara foo jëm mu naan ko dafay dem. boobu moom fii la ma fekk. moytu leen dana saraxe. Ah, xam nga àndandoo day wàlle jaaykat parfois sax booy den rek moom bu yàggee da ngay xeeñ Papa Ndiaye ngi lay yàq de loo bëgg a wax Asia waaye yow yaa defal kii nu mu tudd meew beneen meew bi <laughs> waaw mais mais macha ma ma ay <laughs> sëñ Assane Laye waaw ah, foofu da taxaw de sëñ Assane Laye déglul kilifa lay tudd am na néew ma néewoon na ma sax bul wax. dem nañ ba parking mu tànnal ma oto dafa war a génn mu jënd ko si alalam sëñ Assane laay bu baax la. teraanga gune la may defal. sëñ Assane Gueye laay wala sëñ Assane Gueye laay waaw ah, mu 26. sama xarit sa xarit. waaw lii nga wax ni bi mu ma sonalee man man xam nga damaa mën a feet daa ko fee feet nag mën a solu ba pare damaa rafet. Eh. gars yi duñu bàyyi biñ ma defee ñu may def moom mi tele laa ne. Mm. moom moo woo ba mu ñëw na ma kaay. na ma yow yógoo dara dara safu la waaye ñu ngi lay def ay yëf jox ma ay mbir naan ma del dem géej chaque fajar waaye ba ma ca pare am na lu ma gis de. donc donc donc Papa Ndiaye c'est vrai que kon musique bi am na mystique. non du musique kese. du musique kese de mais dama la bëgg wax la voilà dëkk bi ku fagaruwul benn pël dañoo bokk fa mhm. mu doon jaayee nag. Mhm. bañ ko liggéey ba mu feebar. ñu laaj ko un million mu génne cinq cent mille. yenn 500000 gars yi ni ko ketal nañ la ba am 500000 fii lañ mën a yem mu ne leen xanaa ma lebal leen su ma wéree ngeen fayaat ma ba mu duggee si vol bi daa dem ba avion bi yéeg mu tijji kiiwu avion bi bunt bi wàcc loolu ku ko wàcculoo avion bi. xaru xaru. léegi kon neel seen Assane Gueye laay na ma mayaat ñaari biteel <laughs> jar na ko de. sëñ Assane mayaat ma ñaari biteel yow te say biteel day ànd ak ubbeeku oto yi day ñëw. millions yi di ñëw. sëñ Assane Gueye laay daal yàlla sa jàmm yàgg. am solo euh, en tout cas en tout cas doy na waar mais duñu duñ ci weddi dara parce que Sénégal dafa am ay réalité mm-hmm. comme comme ni ñu koy waxee léegi-léegi l' Afrique a ses mystères. parfois dinay baax boo nekkee jeune nekk ci yoon nga sàkku ñaanu way jur yi. Mm-hmm. moytu àq moytu tooñ waaye itam fexe ñàkk sa bopp ba atteindre la jafe.

laataa dem ci beneen morceau dama lay bàyyi nga wax ñu ñu dikk ci plan de carrière bi. Mhm. depuis bi nga jógee Maroc ak léegi lan nga jot a réaliser du nga studio def nga morceau wala lan mooy sa ay projet waaye sant yi ne tax am na lu may liggéey The Best incha allah rabi war na génn fan yi mhm. moom tamit moo ngi jàpp si affaire bu baax ba pare chaque quinzaine tam ñoo ngi Madison di vaser sumu soirée sénégalais. ok waaw ñoo ngi tamit ci benn projet boo xamante ni dañ ko bëgg a jaaree Maroc comme tamit naa ko dem Turquie. Mhm. su ko defee ñu dem Almeria Espagne. après waaw doo ko ñëwaat. yàlla na ko yàlla mottali. loolu ngay def sa la. waaw. incha allahu rabi le 13 non la 17 ah. le 17 waaw le 17. le 17 novembre bi le 17 novembre. incha allah bu soobee yàlla bu soobee yàlla dama lay bàyyi nga def beneen morceau bu ñu dellu see ñu soog a tàggatoo ak tey. mais Mara gaynde tamit bëgg naa nga dugg fa. waaw ndax ñun dañoo am xarit bu tudd Paco gaynde ñu ñuy seetaan. waaw moom mi ñuy seetaan moo jàppale gars yi de passage boo tuddee Paco ma xel day dem ci euh, ki nga xamante ni moom moo di Bino. waaw Bino mhm. boo xamante ni ma nga foofu ca diwaanu France waaye léegi nag dafa fas yéene dellu si Sénégal moom itam ngir euh, euh, dëggal boppam ci musique sénégalaise mu génne nag benn single bu am solo tudde ko Jaami Sénégal. daa demoon. ma nga woon non ma mi ngi woon France. kon ñu def ci lañ ko defee. non kenn def ko dara moom déedéet dafa demoon ne ci liggéeyam. boole kook di jàngat musique di gëstuwaat yeneen couleur musicale pour bu ñëwee partagé ko Papa Ndiaye mënu bàyyi topp ay kaay. waaw léegi dama lay wax fi ma demoon démb nag. démb damaa seet woon ki nga xamante ni moo bëgg Amadou Ba. Mm-hmm. muy Malick Sarr. Mm-hmm. bu Mbaaw Mbaaw. Mm-hmm. maire Mbaaw. xale yi jox ko bopp nag mu ne ci jumaa yi ne ci jàkka yi di jàppale ñu feebar dem ci hôpital yi ba pare xoolal maanaam ibbil këram ñëpp dawul kenn li politiciens yi di def nii di la digg di daw ak di laaxatu Malick Sarr deful loolu kooku nag mooy doomu nday Ndoura Balde Ndoura Balde na xam nga ni jamono ji moo yor lonaas da ko jàng xaar ko fi te mën na ko maa ngi daal maa ngi bëggee sama gaa yooyu. Ndoula Balde ak Malick Sarr. loolu am na solo en tout cas xam naa. Ah, Mère Yacine lépp yaa ko waral. yaayu mbaya Mbaye kontaan naa ci yow. très bien euh, nañu dem ci ci Mame Balla donc binu mi may wax xam naa ne semaine prochaine du ñàkk dina ko fekk ci réew mi ñu dalal ko incha allah. waaw mais buy ñëw da jël les trois saa nga xeeñoo ko. doog a déedéet déedéet parfum boobu moom baaxul comme da ngay toog di xeeñ moom <laughs> parfum boobu baaxul. maam Adja ndeysaan laay bu ma yenu di la waxtaan doesn't ma defar bari na ma may bari na li ko waral ji koy yàqu nañu kese gee ñu réer moo waral lu waay neex def lu waay neex wax adduna boobu lañu toll waaye bu leen ko jàppee hôpital di jënd ordonnance ya di defal nit ñi te yàlla tax te seetu si ngërëm ak dërëm laay maxtaare kon kii moo tax moo tax suñu dal na jur mi si ndox njar nga demba lambaay ñiinoo ñiin farambaareen latti di gen mbaay naagu naagu naagu naagu dëgën mbaay mm-hmm. xale biile biile si kañooy la ko nga takk ko waaw loolu ah man def frère pare naa pour ne sa wet de sama xarit nga mën ngaa woy mën ngaa sañse waaye sëñ Assane Gaye laay mii dina tax man foo foo ma ne bàyyi naa ñépp ku ma gisati ci Pape Diouf wala ci beneen waykat ah man tamit tey lu ma añee hmm, lan nekkee ah jël naa péage bi de mais Mara mi nga way ku mën a teral jaam ku mën a yërëm jaam ku mën a ñaanal jaam Mara kooku dana ñaanal pare teral la waaw ah, li may wax amecu xam na ci dara ndaa ndaanaan yu bari xam nañ ci dara Waly Seck xam na ci dara man may wax ak yow eh, Lamine Samba mi ñuy seetaan xam na li may wax waaw sëñ Assane Gueye laay ay terrain sax da ko dimbalee ay nit waaw na ko nguur gi jàppale président de la république jàppale leen sëñ Assane Gueye laay mu jàppale jaam ñi mel ni Demba Senghor suñu waa waaw kii kii ci émission bi la bokk moom <laughs> mais Papa Ndiaye nga baal ma benn ak ma profité di nuyuwaale benn kii Omar Sy waaw séeri bébé faa bàyyi Safiyatou moom tamit suma premier clip moom ma ko jàppale di ma jàppale fu ne même lii may waaja def nii sax moom moo génne xaalis bi. nu mu tudd Omar Sy. Omar Sy série bébé faa. fu mu dëkk. Euh, Omar moo ngi Almadi. ok mais nit ku baax la. waaw yow nañ la jàppale da ngaa laa jàppale. moo ma daggal billet. ndeysaan nee ma ñibbisil ma ñëw ba këram mu ne ma xool ma loo indi teel yëkkati un million 500 jox ma. yaa ngi wuy yaay. waaw gaañu la waaw. waaw dañuy jaar foofu ñu tàggatoo vu waxtu wi jeex na daanaka juróomi simili képp moo ñu dese as yi euh, lañuy la waaw incha allah waaw ci yeneen rubrique comme euh, buzz. Mm-hmm. Euh, ak li nga xamante ne moo di euh, people. su ko defee rek ñu tàggatoo ak mbokku téléspectateur yi waaye di remercier bu baax a baax sunu invité toj nga fi tey macha allah li nga way neex na lool di la encourager bu baax a baax waaye pa Mara mm-hmm. dañuy remercier ki nga xamante ne moom ma jox li nga xamante ne maa ko moom laa sol actuellement muy wax bi Itaget ah mu ngi ba bopp rue 5 kooku di faatu Diouf ah, moom mooy jaay yu baax yi numéro mi ngi nekk nekk 77 979 66 22 waaye di remercier bu baax a baax euh, Banel boutique aussi parce que moo ñaw euh, ñaw bi euh, numéro mi ngi nekk 77 474 22 42 Mara mu ngi noonu donc ñu joxante rendez-vous ba lundi incha allah ci yeneen rubrique d'ici là je te souhaite un bon week-end Asi. merci ah, xam naa ne sa week dina neex moom. waaw waaw fii kenn dong fi week di célibataire. Mm-hmm. yàlla na ko ci yàlla jëlee. yàlla mën nañu leen El Hadj Papa leen dégg jàmm. maam ma rek. célibataire gi bu ko yàlla jeexalee rek mu jeex. mais day jeex mais mag maa ngi def erreur Papis séeri arom tamb. Papis man. ne fi Papis Mbaye ah, sama mag la. di ko nuyu. waaw dinaa ñëw ci yow di nga tàggatoo léegi su ma ñëwee nga remercier sama mag bu Mbaye bu baax la borom Italie borom Torino. su ma ñëwee di nga remercier ñi nga remercier. merci beaucoup maa ko indi fii mais xoolal ba léegi kóllëre gi yaa ko yàq waay ah. di kontaan bu baax. di bëggee gaay waaw tàggatool ah di leen wax ni lënd mënta ñàkk nga xam ne Papis Mbaye ko dimbali télé bam ne woon ay la fa jaay ko ñu Papis Mbaye dimbali ko indi nga toog télé bi jaay Papis maam li ngay def maa la ma jaay benn <laughs> ah? laa jaay benn micro laa ay waa càcc gi fenn na waaye càcc gi noonu laam laamee fenn na alaaji Mara di kontaan ci Asia Mambala bëgg naa na li ñu def nag na ko télé yëpp def. am nga talent bi doo dégaamee affaire bi mi ngi nice. ñun Sénégal lañ fi nekkal may mun a nduur mi ne fii. dañ leen morso bi na ko ci ñam. waaw ndax moom jigéen ju mën góor la. très bien waaw te daf maa bëgg de. boo bëggee ma bëgg la bëgg ko. kontaan naa Ndour Faye incha allahu rabbi xam naa ne lundi Papa Ndiaye dina am lu ma la indil ci moom lu ba sàkk. ah waaw du yow moom rek nga bëgg. mais nañ ko dalal. du yow moom ngay topp nañ ko dalal. lundi may mun lundi dinaa ñëw ci yow bu soobee yàlla kontaan nañu ci téléspectateurs yi ñu doon topp yépp j'espère que vous avez eu autant de plaisir comme ñun ni ñu ko amee euh, mbégte la ñuy am saa su ne ci topp li ngeen ñuy topp Mame Balla lañ dalaloon ni ko Papa Ndiaye doxee les ambianceurs xàmmeewuñu ki réew mi xàmmee ki ñu ràññee ki fi toj ak ki fi tojul ki man la ñu xam mm-hmm. te tubaarkàlla il a du talent il a une très belle voix te tey won na ko téléspectateurs yi déglu nañ boo xam ne neex na folklorul dérangé wuñu te woy yi neex na Mame la daanaka deux minutes rek moo ñu dese nga gërëm ñi nga bëgg gërëm ñëpp première séeréer ñu ñaan amaat benn jotaay incha allah. Mhm. bu kii nga def benn morceau deux minutes rek. deux minutes rek nga dugal ci ne ah. ñu def ko morceau dugal ci gars yi ayta kon demal. Mansour ni ma la bëggee bu la jey ba nga xëy dem ba ma xole bi ni ma bëggee bu la jey ba ba ma mbëggeel xoolul tukkuloor xoolul séeréer kon gone gi sama mbëggeel si mama ma rafetlu naa jaratul may wii wii nekk ak moom dana la neex kon soxlaat papa njaay maa may dem ziyaar ziyaar maa may dem ziyaar